dañ leen di ñaanal yàlla ndax bis bi dafa yokk yokk mu yokk moo tax ngeen war tafsir Abdourahmane mu ñëw waaye tafsir mi ngi nii toog kii insha allahu taala bu jugee di ngeen xam ni tafsir ñëw ñëw ñëwul ci waaye ñëw na ci baatin ndax yéen yi ngeen ko xam-xam man xam naa ko jëm këram laa far programme bu mag di ko dëggal ci Seydina Muhammad ak waa waaye fépp foo xamante ni tafsir mënu fa taxaw ñu ko fay xaar bu fa taxawee place tafsir doonul fay ndax man ànd naa ak moom fu ne xam naa niveau xam naa it mën a décentraliser xam-xam. muy alxaaji Muniru Gay moom ak tafsir Abdourahman ñoo bokk ndey ak baay tafsir nag di mooy daara da mu yor ca Masar man mii sama doom ma nga di jàng ba tari tey tey dafa am ay xale ba kaamil bi jeex ca suba la xale yi tàmbali di taay te moom mënu koo dagg ngir xormal alquran te kaamil bi jeexagul te xale bi commencé kaamil min dalika balaa muy àgg naas dina xaw a yàgg lii moo tax tafsir Abdourahman gisu leen ko waaye gis ngeen ko ndax na lu mën a xew yonent yàlla Muhammad dëgg la waaye nag alquran mooy lépp te alquran kenn lu ko dagg di def waaye xaaji niiru kay mii ñëw ànd ak ñi mu àndal incha allahu taala El Hadj yow ak As ak Abdourahman ak ñoom sëñ Babacar ak Mor ak seen i jigéen bis bu alxaaji mu niiru jëlee di ngeen di tafsir bu taala maa leen ko xam naa ko yéen a ko xam c' est que nag xam nga yéen da ngeen xaalis rek mooy seen ci nekk yéen képp mooy seen ci moo tax bu ngeen seetaan télé xamu leen gàmmu waaye ñun ñii dëkk ci tànt di dem ci àll bi di ànd ak ñoom xam nañ kenn ku ci ne dëgg mën kon alxaaji Munir incha allahu taala yal na yàlla fecc la sa laaj bi la mu defaloon yonent yàlla Moussa macha allah ba muy wax ak ñoñam ci daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi bég di kontaan ci waa Sentinelle yëpp di jox jox. Euh, di bëgg di kontaan ci waa centenaire yëpp as yal na yàlla taxaw leen yàlla defal leen jàmm te ku ne xam na ni tey ci la conférence soxna ay des ca Tiwaawan bis bi xam loolu waaye ñu bàyyi ba ñëw ngir yàlla ak yeneen ci kon bu ko defee alxaaji mu niir yow la ñuy jox rek nga daal di dugg ci waxtaan yi bisimilah ñëwal waaye kon bu ko mu niir moom li laa koy ubbilee ay jaaraama maam mel ni mel na jikkoom waaw maa ngi ñaan ku wax maam as tamit yàlla nga ziyaara ji sayyiduna Muhammad ay jaara amal na ma jikkoom waaw amal na ma jikkoom safa ñu dama na am yoon ñu dama na am yoon ونقف وقفا كسي ونقف وقفا وفسي ونقف سلسل أتجعتك يا يا رسول الله خيتك أنا كسبت ما سر خيتك أنا كفبت ما سر خيتك ويدك الحياة أنا لتمدك

Allahu Akbar

Kamu jangan, kamu jangan, kamu jangan.

moo fi raw yàlla na ñëpp am jàmm asmalik fa tabarakallahu ahsanul khaliqin وبارك الله فيكم جزيهم خيرا وكفي بهم شرا لا فقد فوقكم ولا شلت يداكم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الأحد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 wasalaatu wasalaamu ala faatiqi rataqi wa xaa'izi sabaqi xaatimi ahli sabaqi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى واقتدى بآثارهم إلى يوم يبعثون أما بعد ورضي الله عن شيخي وسيدي مولاي مولاي أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني أما بعد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سيد أحمد dafa mel ni soppay Maodo yii dugalagum nañu fanweer seen poos fanweeri triyaam ki mu budd yi di Rasulillah dafa toog ci néegam ca Makkatal Mukarram benn saxaaba ñëw na assalaamu aleykum nabi la ashra baat bi la wax ashra ñu teg ci seeni beneen saxaaba ñëw taxaw ci buntu bi na assalaamu aleykum wa rahmatullah nabi la ashra ñu teg ci fukki minute alaaj Cheikh Dramé beneen saxaaba yi moom rajo bi mu génneel ma fii bi ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen soppe bàyyi bàyyi maag Roqaya Zeynabu Ummu Kalsum yàlla ma juddoo Makka ñu suul ko Madinatul Munawwar borom bariyaru or ba borom sàkkara yàlla ba Muhammadu Rasulullah nabi na salaasin Umar ibn Xattaab ne ko sang bi luy asura luy asuru luy salaasin yéen a ngi ci biir ko Umar ki njëkk a ñëw nuyoo ne asalaamualeykum dama ne ashra yàlla bindal na ko dix tiyaaba ki ne asalaamualeykum wa rahmatullah dama ne ishruun yàlla bindal na ko ñaar fukki tiyaaba ki ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dama ne salaatin yàlla bindal na ko trente tiyaaba Omar ne ko man nag mu ne ko boo dee wa aleyka salaam yam ci am fukk boo nee wa aleykum salaam wa rahmatullah am ñaar fukk boo nee wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatu mu am fanweer moo tax moo tax moo tax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. kon nag ñu ngi fay waaye am naa fanweer. ñu ngi nuyu. suñu sëriñ bi ay si léegi di sëriñ mooy Abdul Aziz Si di sëtu maam Seex Seydi El Hadji Malick la sëriñ Ahmad Diarra waxoon ni aba fikruna sawxan la ali jawahira li xayrikum ya ala Ousmane wal Ahad nee na damay jéem a tàgg waaye bu ma bëgg a tàgg sama xel xel xalaat bu mën a na ma yow waroo tàgg ku dul Seydi El Hadji Malick ak njabootam kon si Malick li nga lay nuyu di la ziyaara di la yóbbante nuyoo ci waa xadra bi yëpp nag waaye nuyu Mouhamadou Mansour nuyu fa tabarakallahu imam Cheikh Dramé ak mboolem bokk yi ngeen àndal ñëw fii ci Tantaf nuyu si Rahman Mbaye di sama jàmbaar dama ànd ak yaayam Maroc bu bis ñu génn aéroport yaayam jàkkaarloo bay daaw góor yaayam ñu tudd ajara ci ndogu yu duuf na ko daaw góor ma dund ma Sidi Mbaye mi la ma ko mu biiru waaye nuyu xarit yi nuyu xarit ba ak gars yi ñu àndal yëpp nag wax na dëgg démb ci heure bii sama kër sama daara fa la fanaan di bëggal xale yi nekk ci daara yi. nee imam bi ak mboolem notable yi nekk ci gox. waaye nuyu association soppay sa Seydina Hadji Malick ñaan yàlla seen mbooloo mi yàlla ko yàlla doole dëgëral te jëme ko ca kaw ca kanam ci barke sax Seydina Hadji Malick nuyu ñu àndal muy Hadji Abdoulaye Gueye ànd ak alxaaji Makumba Jóob ànd ak Abdou Razaq ñëw fekk leen fi waaye nuyu mboolem kilifa yi fi teew bàyyi kenn ku lim doo juum waaye doo matal waaye yu tedd yi nga xamante ni ñoo toog ci tànt bi taaral jotaay bi ci barke Seydi ndax ki ko jotal mooy ñun ñun ñooy moom. njabootam ci mu tuddee Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ca daara ja la wàccee bay toog pour mokkal. ak wu ne ñu ànd tukki bokku ni ay ay fan fan ñibbi si war Sénégal kon am na lu dox suñu diggante kon Sidi. li nga jotal ci ngan bi dox si dañu koy doyloo cent pour wax jëf jëf yàgg xam nga lu tax jotaay baa ngi bëgg a yàgg waaye lépp yiw te sëriñ faa ngi nii agsi na ku ñu fi tax a daj ku ñu fi tax a daj Sayyiduna Muhammad kuy Sayyiduna Muhammad maa ngi lay yebal ci alxuraan gis nga tey gàmmu alxuraan cent pour cent xadis cent pour cent xilaas cent pour cent xasida si Babacar si cent pour cent Alaaji Abdu cent pour cent Alaaji Mansuur cent pour cent Alaaji Habib cent pour cent Seydi Mouhamadou Mansuur borom daara ja borom sañ-sañ ba borom université ba majma al bahrayni alamal huda faqra ashirati musal al akwami cent pour cent kuy rasulillahi yàlla ni wa ma ataakum rasulu wa ma ataakum rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu yéen waa Dakar yàlla ni ci rasulillahi lu mu wax maa ko wax lu mu leen digal def leen waaye lu mu leen tere bàyyi leen nabi moomu moo xëy bis si génn ci këram dox ba ci buntu kaaba ci ana ñeneen moo ko màkk nga bëgg a def waaye ñëpp ana ñeneen moo ko bëgg a teeral nabi génn dox dox buntu buntu nabi na leen ndax bëgg ngeen a nabi ne ndax bëgg ngeen a dugg saxaaba yi na ko balaa yaa rasulallah waaye bëgg a dugg aljana rek rek moo tax ñu topp la. na mi ne dama leen di dénk juróomi mbir billaahi wallaahi tallaahi ku ko si jëfandikoo soo deewee di nga aljana ñu ne léegi jàngale suñu gàmm. yàlla ne la ñu tuddee neen moo tax mooy ci tuus bi duggoo ci neeree bi danañoo di dàq d'accord waaye bàyyi bàyyi suñu ci daal ñu dund ci dee ci dee ci dajëg Seydi El Hadji Malick أوصيكم بتقوى الله العظيم يجب أن تدعو عجلة لمن يدك تلك وإلا يالك يالله التقوى يا أخي لك يالله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يلا سورة قال يلا يلا بو خنك يلا سورة قال يلا جفا جفا بور لو usikum bi taqwallah nekk dara lii njëkk a dugal nit aljana mooy mu ragal yàlla xoolal góor gi borom sikkim bu xaajaloo bi borom centenaire bi Seex Seydi El Hadji Malick Bakar Karaman alam loo ko ragal yàlla ko may si dama ku ñëw benn jigéen wala benn waay seet seet Seydil Hadji Malick jërë ngeen jëf waaye seet Seydil Hadji Malick ne assalaamu aleykum wa rahmatullah Seydil Hadji Malick na ko wax aleykum salaam mu génn ñàkk téeméer yéen a ngi filmé bu dee kon mu génnee mille francs na si laa ji Malick Malick Fa Wade dama bëgg nga fanaan moom may fanaan moom xew si laa ji Malick gën nga téeméer bi ne kon nga ni mu ne ko dama bëgg nga fanaanoo ma wax ma li xew ëllëg si laa ji Malick xuus alxuraan ne ko inna allaha indahu ilmu saa وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير alaaj laay nga ko juróoma ngi doog ribe yàlla la mbirum yàlla la kañ laa dinay tukki kañ la taw di wàcc kañ la àddunay tukki yàllaa ko xam alaaji bàyyi na ko xaw ma ko kañ la taw di wàcc yàllaa ko xam lu jigéen ëmb góor la wala jigéen yàllaa ko xam fan la nit ñi deewee yàllaa ko xam lu am suba yàllaa ko xam alaaji bàyyi jox ko kaa ma wax la nag naan ñu ñor ñu franc bi tas nga diggante yàq nga mbokk waaye ba ngay yàq Malick Fawad wala bokku ci na ko baal ma su ma tëddee ku ci mën simaani leeru ma ba xam dinaa yeewu bay fanaanoo kenn am sa ñàkk waaye da ngay seet si mu liiru mu ñemee lool nga ko ñaar téeméer ko fanaan mooma ah, ah. mu jël mille cinq cent teg ca jël mille cinq cent yi jël jël deux mille yëpp jënd digg jël ba jënd ko ko laa mais ba biiram fees naan naa xamoom tëdd ko ci kaw ba yeew dix heures nga seet si ko ne tëll mu ne la ko jox gi kan la yow ku gàttee ki kan saxal dem ci buñ doon tubaab bu gàtt gi. gaa yi ku bëgg a dugg àjjana il faut que dara gën yàlla. na mi usiikum bi taqwallahi al-aziim maa ngi leen di dénk na ngeen góorgóorlu ba ragal yàlla. mais si la jëmee lu tax mu bàyyi yàpp maa ngi mu raay lu tax El Hadj Malick bàyyi yàpp bàyyi soow. yàpp dafa araam ñu ne déedéet soo dafa araam ñu ne déedéet mais si sax nga bàyyi ko bu dee leeru ba xam gàtt bi ruujul ci toolu jàmm lekk ja ñoo rey ko ma jënd yàpp booba lekk ko ak boobu bokk ma yow man xiyam sama biir bàmmeel xam nga ni sëriñ bi naxul kenn kenn alaaji maay billaahi naxul kenn kenn benn ngoog bare bare am na yàlla yàlla nabi wasiifatul hadiisi jërëjëf ngi nii mbaggu càmmoñ déglu yàlla kiraaman kaatibiina ya'lamuuna maa taf'aluun inna al-abraara lafii na'iim wa inna al-fajjaara lafii jahiim yaslawnahaa yawma ddiin wa maa hum 'anhaa bi ghaa'ibiin wa maa adraaka maa yawmu ddiin يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كرام لو سبعة آلاف في الخير قسمت يعني سأسجل الخلق زيد وستر وحسن وباب الاعتذار يجوب مروح الكرام الكاتبين وهيبة من نعم صبوت خاشع وأديب صدق الحديث نبي ليه سوف جيتوا مع الجامعة ويوحدوا من ذكر أما كنت أصدقك tas ay diggante ngir wax lu am gis nga arsh ñaar ko yëngal bu nit ne laa ilaha illa ak bu nit waxee lu la jumul suur bàyyi xalifa bi dañu ne ko koo mën a jëflanteel mu ne ku ne mën naa jëflanteel moom mu des ñaar ñu ne ko kan ak kan mu ne mag mu dul wax dëkk boo xamante yàlla boo ko ñàkkee ci. na mi ni su ngeen bëggee dugg aljana maa yaay wala papa nekk ci kër gi am ku ñëw di la seet asalaamualeykum ana sa yaay asalaamualeykum ana sa papa nga jël sa doon yabal ko ne na. yaa ñett yow ba ma dugg ci xalima mag ñi na mi ne ku bëgg dugg aljana wal faa il ahdi déedéet ma tal kóllëre. ngay defe la de kóllëre Sénégal ren ngay gis ab politicien bu taxaw wala ku dul politicien ne nii bu ma kenn rey man weñ laa fu toog fu tooy ma rek léegi nag xam sa bopp. tànk ndox la nopp bakkan baat ba génne li xëy sotti sa bopp weñ waaw waaw na bi nii su ngeen bëggee duma aljana waaye ma dal leen kóol la xoolal góor gi ndeysaan xam ngeen ki may mooy borom ko ne kaare ba xamoo leen ko ki may wax mooy borom manto bu njëkk ba xamoo leen ko ki may bëgg a wax mooy borom tekki jàkk tekki jàkk personnalité ba ah xamoo leen ko ki may bëgg a wax moo nekkoon baayu Serigne Mansour Sy borom daara ji xamoo leen ki may wax ki may bëgg a wax moo nekkoon baayu Serigne Cheikh Tidiane Sy borom Gaynde Ngaay xamoo leen ko ki may bëgg a wax moo nekkoon baayu Serigne Abdoul Aziz Al Amin xamoo leen ko ki may bëgg a wax moo nekkoon baayu Serigne Pape Malick Sy xamoo leen man ki may bëgg a wax mooy Serigne Babacar Sy ana sopp Serigne Babacar Sy Malick Muhammad al xayr al bariyati ata Babacar ay ay si du la wax Muhammad al xayr al bariyati ata وفاء العهد محمد الخير البرية أتى نبي سجن بقيته على كلمة للكل محمد الخير alaaji xalifa gay dañ ma muniir ma ne ko labbay mu ne ma kuy sàmm kullale kuy sàmm kullale ba gis sëñ Babacar Si wàññeeku Muhammadan xayril bariyati ata sëñ Babacar Si sama bàyyi naay boo ko joxee guro bëgg a xar mu ne la bul xar xamoo fu leen yàlla boole raxasal jox ma rek ma xam-xam. wa fa bi ahdi Muhammadan xayril bariyati ata dañu ko indil si solal sëñ Babacar sol ne waa bii mooy ban ndeysaan ñu ne bii mooy bone faas ne ah bone faas rafet na ah bone faas rafet na ndeysaan yàlla yàlla sàmm la lii baax na de day bu màggee rek mu am jom <laughs> ah, bone faas rafet na waaw lu ngeen wax ñu ne ko dee ko sol moo xew mu ne nii ah ana bonekaare na ñu jox ko bonekaare na nii mu ne su ma simbee ko dem fa sol ba ne faas yomal xiyaam man Cheikh Al Khalifa may wax bonekaare sama diggante kóol na ne waaw faa bi laa. mu ne non yàqu naa la. Touba dafa ne waaw ma ne ko day wax mu ne ma ko yàqu naa. na bi ne wax yu suñu tawaare maa ngi leen di dénk na ngeen wattu seen i cër bu leen ci mooy yàlla. ndeysaan sii boo wattoo seen cër na ngi ne àjjana yomb xam nga mooy lan say bët bu ci xool lu naqari yàlla xoolal Seydi El Hadji sama baay nee na ma mënuñu mu ne ma la béykat mu ne ma aaxiru xayaati mu jug dugg Seydi Hadji Malick est-ce que xam nga ni bët yi gisul. ma ne ko xam nga ma waaw waaye bi njaboot bi di jooy ah papa sa bët yi rek muur na mu ne leen lu ci jar jooy Malick faa waat na ne yàlla musal na ko ci bàkkaaru bët mu ci jar jooy bu tolluwaay la lu ci ngeen jooy Malick Sawa Diwe de yàlla musal na ko ci bakkaaru ba teru jooy. waxi suñu tawaare. na bi ne soo wëtteew seen cër rek soo deewee sa àddina leer. sa biir. nga ciy dugal lool. boo gisee man ni bu ma sara wax allahuma yàlla nam li ñuy lekk day day day lew li ñuy naan jàpp. donc benn waa jërëm mu yóbbu ma ne ko laa béykat mu ne ma sëriñ diw dégg nga ko ma ne ko dégg naa turam mu ne ma dégg naa ne xalimaam du laal suuf ma ne ko gars yi wax nañu ko de ma daa mel ne xalimaam daa am naa ku la ko wax dama faa dem ay ñaanal na ma mais doxul dem naa ci dugub bi doxul dem mu lewul li ngay naan lewul mu ne ko xoolal sayyidina Muhammad nabi dafa xëy bis rek rek génn na ànd ak Abubakar Siddiq ñuy doxantu ci mbedd Màkk bi ñuy dox ba yàgg rek ñu romb benn daaw mu tànn ndax yow am na ñu romb benn am fi def benn benn pël pël pël bi di jaay soxla السلام عليك يا رسول الله نبي الله عليك السلام mu ne ko kaay naa ci sama soow mi yeneen tamit la ko du siy xëy na yàlla la yàlla fay doxal xam nga nabi bu yees man su may dox maa ngi gis sama tool mais li sama ginnaaw bi suñu mais bu dee seen soppi bi Seydina Muhammad mu ngi gisee kanam noonu lay gisee ginnaaw bi heure bii waxuwaat. asalaam. عليك يا سيد الجن والبصر النبي عليه السلام kay naan soo lu mu la bëgg rek da yàlla tax la ñu ko baax na doxal bër bi yuuxu woon asalaamu alayka ya habib allah yow soppa yàlla bi baayu Fatima baayu Roqaya baayu Zeynabu baayu Umu Kalsum Muhammadu Rasulullah kay naan soo mi dama la bëgg da yàlla tax nabi na ko doy na yàlla la yàlla fay sëy naa ba makka na ko d'accord ma yaa ma jàngaloon teraanga kenn du ko delloo te kii rek ñëw yéene soof rek naan bi wàññeeku ne ko anam mu mu naan naan ndaw si yuuxu sangu àdduna ak àllaaxira naan na sama soof yonent bi geesu ne ko nii alxaariya mal xaariya وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هانية وما أدراك ما هي نار حامية يوم لك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يلا جل جلاله فوق جنين ndaw si jàpp la bu wuyu yàpp naa yonent bi na ko na lew rek na lew lew waaye suñu jawwari am na kumba soo bëggee jëmu aljana say cër wattu ko juróomeel ba waa daa il amaana gars yi bul wor inna allaha laa yahdi kayda alxaa'iniin Cheikh Al Hadj Malick lii ñetti inna allaha daal sama xel inna allaha laa yudii'u ajral muhsiniin yàlla nee na du ma sant ne woon ñu rafetal xam nga mooy lan loo bees sa sabaam ñaar rek sa compte wala wéy alaaxira alaaxira wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduuhu inda Allaahi yàlla ne lu ngeen def rek bu ngeen ñëwee fekk ko fi man du ma jaxase compte jàmm ba tax amoon naa maam neex dalaa jaxmat baru njigéen dafa génn ñu leen tukkee ne nii romb trésor bu kees gis rang bu gudd gudd mu ne waaw ren bi fu mu jëm dina ko teelal premier waaw lu xew ko dañuy fexe ko dañuy joxe xaalis mu ne ah, ah, ah. kon bokk na bokk na ren bi dem di dem di dem ba ci bés bi góor gi moo tudd mu ne am na ko baru njëgën fooy liggéeyee mu ne fii ci penc mi ci guy gi ci jàkka ci maa ngi liggéeyal foofu yàlla ban société nga ne mu ne bi ci penc bi ci wetu guy gi ci jàkka ji maa nekkal foofu yàlla dina ko góor gi demal mu ne waaw lu xew dina ko dañuy jox ci xaalis nen la ñuy jox mu ne ñu liggéey ba weer dee la ñuy fay mu ne ah amul kenn ku mën a boole Ahmadou ak sama Ahmadou boole fay leen dina ko mënta ne turam ak sa tur bokkul fii daal ñu liggéey boo weer dee la ñuy di fay góor gi gerte gi yow ma la yaa ma وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له ذكرى ديغا سين قران نيو با اكسي ملاك ما لا لا امول ياق نكو جيو nga nekk woon Sénégal ramal nga nekk woon Sénégal faat waxtu nga nekk woon Sénégal yàqu ci ko fa nekk woon waaye su boobaa kenn rek kenn rek mun nga mën a sopp mu jariñaa koo koy kan borom bari yor or ba Muhammadu Rasulullah معجزات سيدي الحاج مالك له قبل الولادة معجزات مصطفى سيدي الحاج مالك له قبل الولادة معجزات مصطفى سيدي الحاج مالك الفتى سيدي رسول الله neexoon abadaa buuf ñu burdee ko. wallaahi su ko neexoon laqad haaja ñu burdee ko. su ko neexoon muuniya ñu burdee ko. su ko neexoon xilaaf ñu burdee ko te benn du si jeex. waaye ñàkk ci ñaanam moo tax mu jël busiri yu ne ko kaay ma burdeel la siiwal la moo tax yow ma xiyam moo def busiri yu dina wër alaaj maali ba gis ko ne la rayal. hadis sa fay sa sëriñ Hadji Malick nee na sayyidina Muhammad lahu qabla al-wilaadati mu'jizaatun. dama ni alaaj moo leen di nettali laataa yonent bi di tudd li xew am na ñu ne premier jour ci rabiul awal ci lu jub am ñu ne deuxième am ñu ne troisième ba jël huitième jour alaaj Maalik ne kon su weer bi teroo moo tax tey ñu ngi gàmmu alaaji Maalik ne yéen ñi nga xamante ni yéen soppee Maodo tey ma wax leen seen soppe ba laataa mu judd yi mu doon def. loolu xam la lii laa ne di moo ñu ñaatu dara moo tudd suruudi. par benn. loolu xam la lii laa ne di moo ñu ñaatu. alaaji Maalik ne laataa waa ji judd def na mu aji ay kéemtaan. ndayam ndayam de Amina gis na kéemtaan yi bi si ñëpp xool dafa tëdd ba guddi da ko yaay maa ngi wax de su ma yaay yaay yaay di fa jàpp yaay fi gaa yi jàpp fi may jàpp bokk man ci sa biir ku lay génnee ndax man Seydina Muhammad loolu xam la

bi seen soppe bi juddoo di Seydina Muhammad dafa judd rek na xëy jiw ñu xool njaram la mu set wet fii la dëkk yi si judd nga Alaaji Maalik ma neexul ba neexul lii daal ojaabul jëm taan la ay Mustafa wa makxuula Alaaji Maalik may waaj dafa jub jub ñu tuuti dem xoolal xoolal moo tax moo dàq nag. nuroo ko kenn. te bu ñu koy nuróolee ba lay dee. si. borom soxna si di xool di la xool ba yàgg. naan la yow li ma déggee Seydina Muhammad xam naa ne yéen a nuróo ne ko da ngay dee. waa ji ma nuróo ko kenn. koy tudd ñu gis ko muy def li may bëgg a wax yu sàbbi yu sàbbi ko rabba tasbiqa dafa judd rek ni nii allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على جمال يسبح الله موي سبحان الله تسبيح عبد كم سبحان كم بو خمنتني برور بلا زير كسار ورم دم دم لا مستقيم موي مسكين مسكين وما لم تيجو وبيت الله في أهل ترابي nee na ba nga mi juddoo wa baytullahi fiiha zukkira nga dem jël xilaas mu ne tësël-sëlë ustuwaanaatul muluki yata'atin salaasata ayyaamin falam takwi fii mu ne wa baytullahi néegu yàlla la fiiha annasa ba nga mi juddoo zukkira ak bañ bañ ne yëngatu wala ñu ngi jaaxal ba maana jannat albaytu néeg ba biir arkaani ba ànd ak ponk ya xataa yu kabbira ba nag lu kabbar saajida mbir moom muy aji si jóot mis dal fatini mel ni ki lu am xel ala jama rek ma kii mooy sayyiduna Muhammad daxaru baba kaana mubiinu ala jama rek ne daxar yoo tere aruhbaanu la daya an lii mi tëjë jaanaa dikki nañu lan mubiinu تتابعت تتطلعت الهواتف هاتفيا للتخيل نيابة العبد لرسول الله محمدا خير البرية أتى جنة على جمالك تنتدوم على جمالي محمدا خير البرية أتى وحنا لنا الإسحاق على جمالك انت موتا محمدا خير ومرسد الكلمة محمد الخير البرية أتى فسيدنا ترتبت عن مناجلي محمد الخير البرية أتى محمد ما جبت من يتمام لي لنجحت عليه كل وكم يموت كم سنة لم تفنك ختم جميع الأنبياء إمام كسر مؤمر تواسات رجل محمد رئيس الكابيتال في دنياك xaraw rabbul arsi ma yarda Babacar ne kii la yàlla di wan di ko wan moom rasulillah tasar bil anwaari ma yaxsha ko xalifa ne mu kalam ba ay leer ba mu fes yàlla fi sarirati ya ko xalifa ne Muhammad ay sakara san harul xalqi billahi di leeru Muhammad xaaidu Babacar ne moo ñu orienté dem aljanna xayru xiyaari xuraysh kan ne fudiru xuraysh Babacar yaa ngi nag ci beneen góor Mouhamadou Habibika. Mouhamadou Habibika al Karimi. xam nga ku wax ni góor gi laa toog ci zawiya bi. Mouhamadou Habibika al Karimi. انتصار لا لا لا لا أيام الحميد وأنا الجمال وأنا العلي أنا كتكالي وتبدأ وأخوة وجهنا سلطانك سيد أحمد الله إله محمد حبيبك الكريم على جابتنا جنين تنتل ما يصير سيارة بتهتبها هاي النعيمي على جابتنا محمد هيتم kii mooy dynamo central bi. aftali Hashim. tabax Malick ne diiru Hashim Mouhamad la ci gën. waa ay di rahmati. alaaji Abdu ne Mouhamad yi dem ni yërmande. xayril bariyati. alaaji Abdu ne min def fi Mouhamad la ci gën. safi ummati. yéen alaaji Abdu ne Mouhamad ay ramu jaam yi. atirni. teraanga yi. min sayyidil haruni. alaaji Abdu ne yàlla jox na ko sang bi yenu. azal baraay.

jaajëf ba su yaakaar doo ko yaakaar Muhammad la yaakaar. wal jawharul maknuun. wal jawharul maknuun. wal jawharul maknuun. ah sëriñ Cheikh Mouhamadou Mansour seen góor gaa wax loolu nag. wal jawharul maknuun. baayu sëriñ Mame Malick Si moo wax wal jawharul maknuun. wal jawharul maknuun. Mouhamadou Mansour Sy borom daara ji borom daara ji bugon ko xoko gal ko de jawru matmoro sore dugg na ci jiw bi ba rasulillah wal jawru matmoro borom daara ja ne Mouhamad ay peru jamaa bi wasababu lani Sëriñ Mansour ne Mouhamad ay sabab bi nga xam ne xalaw laa ma kal wududu mi xalqati jël Mouhamadul Mansour ne bu dul woon teg Mouhamad yàlla du bind benn mbindee. Sëriñ Mansour ne mboolem yonent yi. wal mursalina. Sëriñ Mansour ne ñi yàlla yónni. wa xayrihi. Sëriñ Mansour ne ak kutu bu ñoom. minal muminina. Sëriñ Mansour ne ci jullit yi. ruuxu asnashati. Sëriñ Mansour ne Mouhamad صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تكبير صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله هذا رسول الله كل سنة يجيب ويجرد يلا به وسلم النبي ويروي بيخش الشفاعة هو رسول الله رسول زي كم يرد والصيام الذي استليا بقى خلي به يرتخي الابرار يا بحيتي استليا بلا نجا سيرا لخدرتي تحت حضرة الاله هو رسول الله الله يا مصطفى سيدي lu neex lu rëy te lu ñëpp ñëpp kon si xam-xam baa borom daf la sëriñ bi la ñu bëgg xam naa ko la ñu xam naa ko ñëw fi ngir ndigal lu sëriñ Mame Malick Sy ak njabootu Seydi El Hadji Malick te bu ñu fi jógee tamit da leen xaaral xam na ko ndax ñoo bokk mission sama bàyyi dana mu ñëw ma ne ko la bekk mu ma accident gàmmu bi dem mooy ñu gàmm ba mu jeexal te fi ñu xilaas may ñaan doonte ñaari bëy ci xilaas ñu firi ko lépp ñu teg ko ci cinq minutes dox sëriñ bi nag jotale message bi muy jotale. chargeur chargeur à bas ah. yaa ngi ci weeru gàmm. ñu ngi ñu ngi branché woon. teel a samedi suba la dina ah teel a cinquième jour daanaka waajal daal loo wax sax Alaaji Maalik yal nañu ko yàlla fay wax naa ne bi course bi départ ba ñëpp taxaw ñu ne aja course ñu xam ku jël pay du si rajo naa ne tëll dañ ne ko da ngaa ko toog jël nga pay deux la ñu xool kan lay la lay la وسمع الفجر alaaji Maalik nga léegi bëgg a xam ban guddi la ñu ëmb yonent bi ma ne ko waaw mu ne ma leeral aw la ba guddi àjjuma guddi àjjuma la ñu ëmb wàcc moo tax mu ne xàll la wàcc na ku wàcc mu ne ab dund teew jamaa bi kañ la wàcc mu ne leelal awula guddi àjjuma bari na yàlla mu ne fii rajab si weeru rajab kon guddi àjjuma la ñu ëmb waa ji weeru rajab la ñu ko ëmb su man mën a di topp di woote yu naa di ab wootekat mus na al fahim du déggal ku déggul alajuma rek loo teg boo xamee wax ma soo xamul wax ma moo du jël xalimaam capp ci daaje wi tax daaje tuuru mun a tërab ba yeewu leen an nanural xat leer dañu kaska woon xat ci dëgg-dëgg xal la wàcc na lay la ko seen guddi gi fii xiimatin ci seen berkeel li ñun abdoxaril xiyam ci gën gaa laa di berkeel kon ne mbokk yi ku fii ni aaju yàlla na ko yàlla fajal ku fii ni yàqare yàlla na ko yàlla tekki waaye tawat yàlla na suñu borom saafara waaye jiit yi ku si nekk ci xéewal yàlla na ko suñu borom yokk ku si nekk ci safar yàlla na ko suñu borom tekki yàlla yàlla raxas xol yi tàbbal ci imaan ñi demagul màkk yàlla ñu dem ñi demoo te bëgg a dellu yàlla ñu dellu baana yi ñu ngeen jaay te yàlla jar commerçant yi ñu ngeen jaay te yàlla jar ñi bëgg dem bitim yàlla ñu dem fu ñu demee lu ñu fa am yàlla ñu ko jëriñoo jigéen ñi amul borom kër yàlla ñu ko am tànk ruux yàlla ko yàlla saafara tool yàlla ko yàlla barkeel maa ngi ñaan góor ñu amul soxna yàlla nañ ko am sama yaram daan na tàng sax ci ñaan bi ma ne jigéen ñi bëgg wuti sax yàlla nañ ko am waaye sama yaram yi am na tàng ma ne góor ñi bëgg ñaari yàlla nañ ko am su ma daan ñaan nag fii laa daan jam ma gàmm dëkk bu ñu wax mbaan jarisaatoo ba gàmm ko jeex bi ma ñaanee benn meer génn ñu ana mu ñu ne ko maa ngi nii mu ne yow rek tafsir mu ne ko maa ngi nii mu ne xam nga ni tafsir la dàq gàmm mu ne ko mooy sama professeur meer lu xew mu ne ma dama laa mere nee ko xew da ngaa ñaanal ñëpp bàyyi ma a ko ñaanal naa la ah ah ma amaa ñaanal ma ma ne ko ñaanal naa la ma ñaanal ñëpp fàtte na dafa am loo waroon wax taw ma ne ko lan da ngaa waroon wax